wax naa la sànq ne la Guinée Bissau Guinée Conakry Mali Burkina Faso Côte d'Ivoire yépp seen fruit bu ñoree fii lañ koy andi. Mhm. ci sous région bi dañuy toll bu ñu boo gisee màdd am dañuy toll jamono boo xamante ni su màdd amee liy jóge ci Mali ak Côte d'Ivoire ak Burkina Faso ci ay camions màdd dugg Sénégal bu ñu la ko waxee doo ko gëm par jour suñu bokk suñu fruit bu ñoree fa lañu koy jaayee. li olof yi di wax nag benn bañ ci gimiñ dafa war a fonk te weex mooy benn marché kese boo xamante mooy marché syndicat ci ndakaaru gépp di di servir fii ba Louga fii ba Mbuur fii ba Ndar te pourtant Mbuur am na sandika Louga am na syndicat Ndar am na syndicat mais dañuy toll foo xamante ni li ñuy indil ci bagage dootuñu ko attan ba dañ koy jëlaat di yóbbu foofu. ñoom ñu ñuy commandé ñu di leen jox. santinière gi ak feneen ak feneen tey boo fa demee. Ah, nañ ko organiser santinière waaw te lu ci ëpp ci suñuy bagage la ñu jël si syndicat di ko yóbbu foofu. Mm. mais organisation moo leen may leen. ñuy dem di dem ba marché bi toll fii ñu jàpp ni kon marché laajaat na tey jii ñu jéem ko moderniser waat ba mu méngoo ak jamono. boo demee ña dem siin lañ lay nettali nga di ko xool ci internet ndax mën ngaa bañ a dem fenn te xam la fa xew mhm. xool lay xew Dubaï xool lay xew siin xool lay mhm. xew Turquie ci seeni marché nañu mel ñu defar ko ba yow tey jii boo dikkee fu la neex lal julli fu la neex toog te marché la mu jënd ko yaay Sénégal war nañoo àgg foofu war nañoo àgg foofu mais li ko waral mooy euh, mbir mu mu mën a doon rek soo koy def na nga ca boole ka ko xam mais problème mu Sénégal la surtout damay wax ne bu gouverneur yi yi yoree marché yi nañ xam ne gouverneurs yi ñoo yoroon marché yi mu jugee ci gouverneurs yi ñëw ci préfet yi bi découpage amee à 96 mairie am ci lañ jël marché yi jox ko mairie yi mhm. mais damay wax ni mu delluwaatoon ci loxol gouverneurs yi wala mu delluwaatoon ci loxol préfet yi moo ñu gënal ci gudd ñu tool ni sax ci loxol mairie yi nekk ndax xëy na ca jamono booba Euh, Baye Laay daana wax ni daanañ def ñetti weer yu ne ñu toog ak préfet yi waxtaan ñu xam jafe-jafey marché ñu àggale ko ca kaw. Mm. wala gouverneur yi lu bëri daana saafaraw mais bi marché yi ñu découpage amee ak 96 ñu jox ko préfet euh, maire yi li ñu jàppee marché rek mooy nag wu jur ñu taxawal ko saa bu ñu xëyee danañ ko rat lañu ca soxla ci meew yóbbu lii ñu wayal jaay lii ñu ñu naan la ca des ñu tuur. maanaam dañuy ñëw jël seen i juuti seen i juuti la ñuy waaye nag a ngay rat war koo jox ngooñ wala ripaas yow doo xam ne sax lii da ko war a xoon misaal li ma la bëgg a wax mooy saa bu ñu xëyee trois 365 jours yi ñaari bis lañ ci dul fay juuti muy tabaski ak korite chaque jour que jëfee ñu fay suñu taxe municipale dañuy fay bay sam fay samedi ak dimanche te ku ne xam na ne administration du liggéey samedi du liggéey dimanche loola nag incha allah union bi ñu taxawal xeex ba ñu wax ñu lu tax samedi ak dimanche ñu di ko fay benn beneen ba ca des mooy du ñu delloo dara marché tey marché boo ci dem ku ñu fa ëpp alal wala nga yor sa tuuti sax ñu fal la misaal mi damay jël kii bu nit ëpp bu ñëwoon diw mi moo ëpp alal tey ci marché bi ñu jël ko fal ko mu doon délégué boo demee deux ans trois ans bu la rombee nga yéene ko sarax lépp ci kawam lay tego délégué marché amul salaire fépp fu muy dem mooy paas ci boppam mooy paasal boppam bu juuti amee problème ak jëndkat bi jaaykat bi. mooy làmb poosam fay mooy dem police mooy dem gendarmerie dem tribunal di lijjanti duus yi. moo yéen kay yéen ñi ko fal délégué kay xanaa yéen ko war a mun a jox fond de roulement. loolu am na am na ci yeneen marché yi mais du fépp la am. mais waxin la ñu demee tey jii ba nga xamante gis nañu toilette di déborde na wala mbalet bi déborde na wala war ngaa am làmp amoo ko ci ngay dem ci maire yi. Hmm. di négocier di négocier pour ñu defal la loolu. lay tax ñu defal la mooy da dem ba nga xamante ni jaadootul nga taxaw bind préavis de grève jox ko mhm. jox ko ji ko war a jot yi ne leen suñu àggee ci dat sàngam lii may jàmbat te ngeen ko war koo def bu ngeen ko saafarul dinaa téye samay taxe municipal bañ ñu téye taxe municipal yi mooy tax ñu defal la loolu waaye bu dul loolu amul lenn lu meer yi di defaat ci marché yi olof nag nee bu ñëpp yemee cër am ñu gedd seen bas am na ñuy mm. góorgóorlu ci maire yi góorgóorlu ci seen i mais bu fekkee ni tey dañ téeméeri maire a nekk ci biir Sénégal juróom fukk yi ak juróom yépp defuñu dara ci seeni i lépp heureusement ba souligné nga ko parce que am man moom bu ma toogee ci ci siège di wax écran wër ma damay jàpp ni bis dina ñëw ma dugg ci sama bàmmeel li alxuraan di wax naan kulluxumu ayati yawmal xiyaamati pardon du ma gëm la mm-hmm. lu may wax damay leer waaye bu ma koy wax danaa ko wax ak responsabilité. danaa ko wax it loo xamante ni danaa ko am fu ma ko teg du ma la mere ba tax na ma attaqué la ci lu dul dëgg waaye du ma bëgg la neex ba tax ma waxal la lu dul dëgg. Mm-hmm. parce que suñ borom rek a ma ñor leneen ñor ma li ñu seq nag bu ci waxante dëgg jotee nañ ko waxante. Mm-hmm. Euh, am na maire yu góorgóorlu waaye maire yi dul góorgóorlu ëpp. te teguwut fenn te ñun li ñu warloo ñoom ñu ngi koy def. Mm-hmm. te saa boo xëyee da ngay dégg ñu ne société sàngam ña ngay jàppante état. di dem ci yoon ak ñëw ngir fiscalité toog nañ 6 mois fay ñu wala 2 mois fay mas ñu ne dégg marché bu ñu la ñu ngi nee ko seen juuti lu mu métti métti saa bu ñu xëy fay juuti même bu ñu amee lu ñu naqari sax nga ñëw ci délégué dañ la fayal juuti pour nga mën a kaas li nga moom da def li la war da ngay def li la war te fu ñu ñu ngi def li war mm-hmm. bari na ci marché yoo xamante ni tey jii la fay génn bu ñu ko organisé woon section bi ñu boole ci délégué yi ak maire ba ak ña ko seq organisé am na ci marché xam ne li muy génnee tabax na marché bi mm-hmm.